jërëjëf non xam nga la président de la république il est l'élu moo tax élection élection la sax c' est une élection nit ñi sax dañuy wax les élections mais c' est l' élection c' une élection président discours bi bokk na ci discours am yi gën a gàtt mais dernier phrase bi boo xoolee moom nee na dialogue lay woote pour donc une élection apaisée inclusive et pour un Sénégal réconcilié d' mais dafa fàtte ne processus bi tey jii nii comme li ma wax xëcc décret boobu dindi ko arrêté wul processus bi man wax naa ko. retirer le décret. Euh, du 29 euh, novembre 2023 arrêté wul processus bi. parce que décret boobu noonu am na bu ko jiitu mooy le décret qui fixe la date de l' élection présidentielle la date de l' élection présidentielle est toujours fixée au 25 février te boobu moo njëkk décret bi te soo xoolee même décret bi bi ñu koy abrogé dañoo viser décret boobu. benn la deuxième chose mooy su ngeen dégloo discours président de la république dafa wax ne dafa am problème ci conseil constitutionnel mu wax ne assemblée nationale daf ma saisir mais waxul ne aussi problème bi aussi am na ci gouvernement bi les deux têtes de l'exécutif kenn ki mooy candidat bi te tamit dañ ko joxoon te foofu soo gisee président wax loolu nga dem ci article 42 ñu ne la moom mooy le gardien de la constitution ñu ko indilee une proposition de loi constitutionnelle li mu njëkk a war a xalaat président de la république gardien de la constitution da ngay dem ci article 37 moom dafa waat mooy ki fi waat Sénégal fii président Macky Sall mooy la seule personne bu waat ci constitution bi parce que mooy njiitu réew bi dafa de 103 articles yi ak préambule bi li ci nekk lépp da koy sàmm loolu mooy le président de la république et gardien de la constitution ñu ne assemblée nationale sa nee na soo jëlee proposition de loi dañ koy jébbal président de la république pour avis président de la république moom amaa muy joxe avis moom mu ne day woo président conseil constitutionnel pour laaj ko alors que le conseil constitutionnel est un organe collégial il y a problème pourtant 2016 bi mu bëggee wàññi mandaaw dafa jël jébbal avis conseil constitutionnel ni ko wax ma sa xalaat bi mbir mi ñëwee mu xool ni lii day laal la clause d'intangibilité noonu la ñuy jàngale bërkaati démb rek lañ ko amoon ak xale yi am naa sax sama étudiant yu may woo di ma laaj daanaka mais prof finalement l' article 103 on peut y président mënoon na ko jël rek yóbbal ko conseil constitutionnel ni leen dama leen bëgg a laaj lii li ñu bëgg a def est ce que mën naa nekk. parce que xam nañ ni mënta ne kenn mënul laal la clause d' intangibilité beneen bi si topp mooy président de la république ak assemblée nationale mënuñu arrêté processus bi suñu processus électoral su xasee dem 2022. génnewuñu ñoom Ousmane Sonko ténor opposition bi nit ñi société civile bi wax nañu fii et cetera mais dañoo dem élection xam nga lan moo tax parce que mënatuñu woon nekk candidat pourtant man damaa toogoon ci ñi doon wax ni conseil constitutionnel ni kuppati liste lii amul ci science électorale amul ci droit électoral mais l'article 92 de la constitution du Sénégal nee na les décisions du conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir public les pouvoirs publics président de la république assemblée nationale pouvoir judiciaire à toute autorité administrative et juridictionnelle le président de la République est la première autorité administrative et juridictionnelle ça s'impose même au pouvoir au, conseil constitutionnel c'est que ça signifie que les les erreurs même du conseil constitutionnel s'imposent au peuple sénégalais c'est comme ça même aux États-Unis les erreurs de la Cour suprême s'imposent au peuple américain demal nga xool mais l'Amérique n'a pas arrêté son processus en 2022 on n'a pas arrêté conseil constitutionnel un an la amoon parce que ñu ngi ko créé avec la loi du 30 mai 1992 Sénégal de à 92 suprême rek la amoon ñu def éclatement créé conseil d'état cour de cassation ak le conseil constitutionnel parce que dañu bëggoon a am le modèle européen de justice constitutionnelle doublé maintenant d'un certain nombre d'agréments du modèle américain de justice constitutionnelle ñu ne ko yow yaay saytu fii lépp luy élection nationale ñu ñëw ñu ray le vice-président président ba di juge Kéba Mbaye bàyyi dafa tax processus bi arrêté commission bi nga xamante ni cour d'appel madame Andrea Vaz nga xamante ne à part conse conseil constitutionnel cour d'appel ay saytu moo yóbbu sax les délégués au niveau des bureaux de vote amoon problème processus bi dafa continuer tey jii nii gis nga li ñu dal nii crise politique amul crise institutionnelle amul crise de régime amul la preuve assemblée nationale fonctionné wul bërki de conseil constitutionnel newul di fonctionné président de la république newul di fonctionné mieux encore président de la république moom même avec les deux têtes de l'exécutif nee na dafa renouveler sa confiance au premier ministre premier ministre bi moom mu ne aussi renouveler na ko sa loyauté kon ban crise moo am alors maintenant li ñu war a xam mooy assemblée nationale li mu jël c'est un acte inexistant xam nga inexistence mooy lan en droit muy droit constitutionnel muy droit mooy acte boo xam da nga koo jël te amoo sañ-sañ bi mënoo ko jël taxul fenn c'est depuis une jurisprudence de 1957 Rosan Girard moom la ñuy jàngale donc président de la république fi mu njëkkee jalgani constitution te moom mu waroon ali am bi ñu ko ko indilee mu ne leen damay continuer processus bi mooy conseil constitutionnel si boppam moo ne gis nga lii di loi constitutionnelle suñu commencé procédure bi wala su ñu ko bëggee suivre bu fekkee ne dafay laal les limitations dans la constitution dañ koy arrêté donc bi ñu ko jébbalee rek da leen waroon wax ni li mënta nekk benn bi topp nag ma répondre sa question élection présidentielle bi c'est le 25 février 2017 parce que conseil constitutionnel rek moo am maqaaba tey jii nii te ci ñaari sañ-sañ la am ba ci ñett ñaari mooy soo jëlee article 29 ak 34 bi wax su benn candidat deewee ci yenn anam yi ci biir processus moom mën na ñëw toxal élection ci ñaar yooyu beneen bi ci topp nag mooy su président de la république démissionné woon wala mu faatu wala mu am wu su boobaa noonu conseil constitutionnel moom moom lañ koy jébbal parce que moom moom mooy donc statuer sur ce cas donc nga xool ni conseil constitutionnel boole ci mu nekk dans le pouvoir judiciaire boo xamante ne amul benn rapport ak pouvoir législatif ak pouvoir exécutif beneen bi ci topp nag ma wax la ñaata membre conseil constitutionnel la ñu jiiñ du ñaar conseil constitutionnel demal nga xool une de ces décisions am na boo xam ni man ak Seybani Sougou même ñoo génn notre doyen njaw Diouf mandaam dafa arriver woon à expiration notre juge mandaam arrivé à expiration bu Boussa Diaw Fall yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mu dese conseil constitutionnel ni en vertu mu ni esprit de la constitution et pour la stabilité même des institutions et la continuité de l'État damay statuer parce que mu ne su ma nekkee membre parce que amee quatre membres sax au moins damay statuer su ñu nekkoon trois nag mënatuma ñaari membres yi conseil constitutionnel suñ ko mayoon wala dara président sax de la république sax mënoon na ko bind sax ne ko mais est-ce que les deux membres du conseil constitutionnel ne peuvent pas être en congé pendant la période euh, présidentielle en France Laurent Fabius mu amee l'affaire du sang contaminé il a pris congé de l'Assemblée nationale gis nga moo tax ma ne le droit d'un peuple souverain kenn amul droit di ko capter di ko orienter di ko jël processus bi day continuer man loolu laa wax parce que assemblée nationale li mu jël nii déjà kenn promulgué ko. mais finalement finalement. yéen a ngi revenir ci conseil constitutionnel. mais waa PDS ñu dépo commission d'enquête ba kenn waxtu waxu commission d'enquête ba. waaw xam nga la moo tax xam nga la moo tax. waaw ah. dafa am trois types d'enquête dafa am enquête administrative. tey par exemple président de la République su ko neexoon mu yónni IGE fenn affaire bi IGE mënoon nañ ko cee yónni. voilà wala wala wala OFNAC dem mu am enquête parlementaire commission d' enquête parlementaire article 48 règlement intérieur mu am enquête judiciaire commission d' enquête parlementaire affaire bii nii su ñu bëggoon mu leer mbir mi benn juge bi porte na plainte bu ñu demee bu amee l'ouverture d'une information judiciaire rek. mu jeex mu jeex ma wax la nag maintenant. le procureur est l'avocat de la société moo tax le pouvoir judiciaire la justice n'est pas un pouvoir de l'État c'est un pouvoir de la société mm-hmm. mën nañu jiiñ premier ministre du Sénégal corruption ñu jiiñ deux juges constitutionnels corruption et le procureur waxul dara alors que fii Bassirou Diomaye Faye taxaw na rek bind sur la justice ñu jàpp ma nga kaso boobu ba tey xam nga loolu moo lay wan ni lii warul mën a annuler le processus mais légalement techniquement constitutionnellement le processus est dara arrêté wu. dara arrêté